bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal sama bàkkaar yi moytu leen di ma jooral aka baax waaju sell dem na te wóorul rabbana mi ma xam te leen du ko jaaxal du ko ñuy nax bu leen fa ñëw di ma sellal lima ma nekkoon ba xëy mes ku mu leerul bu ma sellal wallaahi ñaana ma dàqal ku ma tooñoon de maa ngi sa jeggel di la ti bul ma ko jàppal la ci toñ la lepp de nekkul lu ma rek ka ma xirtal ku sa xel dem ci man taril la nga mokkal di lu baax tut tur witif li am dal bañ a sàlloo di dëgg mu mel ne ku jeexal sunu buur bi nu moom ku neex ko de lay jël ñi fi aw jàll ñépp a gën ma bu leen jël fani fan def ci man ne àddina jeexul bu ñu sëngeem xalaat taxul ba ma yeesal sama teewaay ci dun bi kon bu nu yàggal bu ñu sëngeem xalaat taxul ba ma yeesal sama teewaay ci dun bi kon bu nu yàggal bunu booloo gannaaw bu jàll na yellul ku ne toogaat di xaar xanaa ku liggéeyul nanu dooraat liggéey ya tey bañ a yàggal te ku faatoot la des ci moom di ko ñaanal jërë ngeen jëf xanaa ne faw da ngeen jël vidéo yëg nataal yi lépp di baaxal di ma seereel yi teeg yeneen ya mu àndal te bu boobaa bu leen ma fàtte di ñaanal jël ngeen jëf xamna ne faw da ngeen jël vidéo yeeg nataal yi lepp di baaxal di ma seereel yi teeg yeneen yamu àndal te bu boobaa bu leen ma fàtte di ñaanal te bu ba bu leen ma fàtte di ñaanal te bu ba bu leen ma fàtte di ñaanal alhamdulillahi rabbil alamin